Njambe Joxaane. Njambe Joxaane. ñun Ndolo. lu ñuy rek. loolu moom mooy li yàlla dogal mu nettali lu ko. Mm-hmm. Eh, na bi muy ñëw ci Soxna Fall fekk Baye Mor Ndiaye Jum. Mm-hmm. Cheikh Gallo mm-hmm. ak ku ñuy wax Muudu Boob. Soxna Fall ko noo tudd. mu ne Isma Joxaane mu ne Cheikh Gallo noo tudd. mu ni Cheikh Galata mu ni kenn noo tudd mu ni Mor Ndiaye Jum mu ni noo tudd yow mu ni muudu bopp mu ni xéexée doom jum taal bopp faal jum bi taal bopp bi mooy faal lay wax mooy fabal ci loxo waaw jum bi mooy li ñuy lakke ay sëb mooy ju sant góor gi taal mooy taal biy tàkk comme góor gi bopp bi mooy góor gi sant bopp mu ne àndaw àll bu leer waaw <laughs> Cheikh Fall loolu wax Euh, boobu mën ma ko nit leen du la hmm. salaamaaleykum faal jum bi taal bopp bi ndax àll yu leer daanaa mut guy maaro mu ni faal ana isma joxaane mu ni maa nii mun njaay jum si ak taal mu ni waaw nii kere la seer faal tere tox waaw Baye Isma ne ne kër la Seraphaal tereetu ko ne ca njakar ma jéey. mais mu ne ah, di tux poona ñu ne ah, am na ci ñu koy def de mu ne ah ba leen ku baaxut de day xañe wërsëg di gàttalu fan di taxadee dem sawara boo amul sëñ bi mel ni suñ bàmba mbaa yi rafaal te dañuy dem ba jamono tudd mooy gën a yomb am nu te doom maay fàttaawu suñ bàmbaay rasaax maay ubbi buntu yi suñ tubaab du jeexal moo tudd xane yu ak moo ne te tuddul sëñ bàmb tuddul Sëriñ Faal doom te am ko boo jiñee ma dem boo ñu dee mu ñëw ndax noonu ya naxunu yàlla waaye yàlla naxunu sëñ Bamba yàlla naxu ko waaye moom naxul yàlla man mii sëñ bàmb naxu ma may naxu ma ko lu ñuy aayee musuma caa fekk te lu ñuy tere ca la ma fekk moom Sëriñ Faal loolu la wax keroog moo njaay mu ni faal mun ku yor naanu na ma ko tàbbalal fii ñuy sànni gën yi ba boo toogee kee toog fee du ngeen séenante ak ak saako yi déppoon mi bi mu koy nettali Cheikh Serif a ngi toog bàyyi bàyyi sama joxaane mooy dégg nag li naa gan kenn mënu ko tee dégloo ko seetloo ko ko xool loolu boobu loolaa ma ca dal waxuwul ak man mag ñi la doon waxal boobu maa ngi ànd ak Mamour Khoule ak mamour thiaw ñaar wala ñëk ñu talé ngi sey baak sharafat tim ko baak mu reem yo nga xay du ngepp bañ yi ah si si ba jam ngeen ñu jam rek faal mu ne aka bot gor yalla ga wara jëfëndiko pondé bob bi day risu asaman kum waj sañ sañ ba toll ni aljuma jot ci buntu juma mu teul fa ñent bari goy sangal ci xeblay fu mu ci wul ko nan fa ba mandi sey fa ak jigen te du buddi dara jam ci yalla du bop way bu tuxee ñetti saxari pon leer gi daw ba ci way tanke do doom bu su leen pon don di wut yalla di dak leer ak yalla foo koy amee bàyyi yaram mbay ko ah, xana melni mel ni mu yaa ah, fu ki ngóot ñaar ko boole mu ta mu lak mu togg cin mu tal cin moo bayar Baye Yaara Mbay laaj ko ne ko ndax pun da bok ci diine ji wala da bok ci murid ji wala da bok ci Baye Fall gi Cheikh Fall ko pun buku ci diine ji bokkut ci Baye Fall gi buku ci lislaam bokkut ci ngor daa ne ko yaaram mu mu kàllaf mu ngab pun diko ko mbolo cheikh ko mom l'islam ñaaw ga ci sunu borom mi melni mel ni ku fekk mu kàllaf ci digg pénc mu taxaw nga dag tubay ji bagasam la bandar na loola ñaawe nga jombe ko ko tux ponu ko gën a ñaaw gën koo bon ba leen koy kere Cheikh Fall tere loolu daal ni bu leen ma dóoral sax diggante sëñ Tuubaa nag is ma joxaanee mu ne Fall mu bu leen ma dóoral tuxuma pon ci bàmba ji naanuma ci sàngara muyuma ci yàlla musuma cee fen du ma ci mag gëdduma ci mag duma ma gu re gu defuma ci sib defuma ci araam lenn rek la yaar dong laa ci bàyyi nit ñi tuumaal ma ba bëgg déllam sawara bàyyi koor ak bàyyi julli te dama lu defandoog sëñ lenn lu muy liggéey ma di ko defandoog mu du ma ko def te ne ñam bi yaaw na jëm ci yàlla muy julli ak koor ma fekk fa guneeg jigéen te du ma defandoog guneeg jigéen lu may bokk du ma bokk ak ñoom lu ñuy jëf te nag sëgg julli nag moom moo gën a yomb doonub julli ñu kaa faal lu dib jullit mu naa ah du julli képp de ci jàkk-jàkk jumaa ja du képp de du woor weeru koor kepp woor weeru koor képp ku ko woor ba koor gi jee nga wari lakk say beñe lekk ko añ yendoo tox mbaa nga yendoo naan mbaa nga dem grand place mbaa nga def lu cib mbaa nga def lu aram mbaa nga mooy yàlla baal koor sarfalullah baal koor koor waratu la daal di jigéen su dee tenj jëkkëram ñu di ko jàngal na muy jàppee jàngal ko faatiya na bàyyi tenj ba mu tenjul looloo ko waral kuy warga da ngay wor ci beut wor ci nopp wor ci bakkan wor ci làmmeñ wor ci xel wor ci bir ak tank ak loxo dara ñu ci mbalu aram do ko laal ba koor gi del ci demen umal koor yow so meunta ba lolu bal koor yow wor wacc na la ndax so ko defé yalla nangut yalla tax yow nu duñu waxtaan sharafa la wax lool wor wëru koor yendo lek ngon jot nga moy yalla nani sangara tukpun dem grand place dam ya ji mba nga ji ba do man ak musuma musuma musuma di musuma lak say mburu sa yo mo seen ci kor la dekk ñu ne ko julli la musuma selmal ah, musuma selmal ah, liggey gën aw jang mando gën kor tabe gën julli te lool la bolé ku jibul am diine ku dégg ndigal am xam-xam ku jëfandikoo ndigal ci kitaabulaay su ma juxaanee ne faal mu doom yoon wa ngok yoon wa ngok ba benn bis mu woo mu ñu isma mu ne faal mu ne am ah, waral tund ndula demal war tund ndula caxak dongoog dang seen ak eh, dëkk yi ndula daal ci gàttal ba ca coŋo ba ca ngajaga waaw ba tundu nu la daj mu dëkk sukk ca yooye jamono mu yëkkati téeméeri dërëm ak fukki dërëm ak ñeenti dërëm loolu lañ ko jox ci yoon wi mu toll saari alxuraan yi Cheikh ni ko nikk si biddeen ko ci kaw ne saa di ji woom na waaye diis na téeméeri saar yi ak fukki saar ak ñeenti saar lañ dëxañ ci addiye ji ñi seen ñi ci seen deureum dugg simple la ñu seen gettu sawara yobu ko aljana dal ni ko isma mu ne ko fal mu ne ko adde day day bari lu neew di barkel lu bari di def dara fu dara neewut te bu ñu leen suulee sawara do lek di su laaj bis penc fonk leen adde gina mu leen julli ndax julli kat mu leen ko dom ndax ku julli ni allah akbar jang fatih ba ci salat siratal sam xel dem ci sam xel doxelu tollu sa tray bamel demal meul amato julli te balaa seen xel yee wayaase ngeen ne allah ko di julli rendez-vous bu ne di ngeen ko xalaat di ngeen dem sax ba seen xel dee dem ba bar sànq sax bar mbaa ngeen wuti lu ngeen amul ku def loolu baal julli mënoo julli julli da koy def wakilu ci suñu borom bi nga jaayanteeg yàlla engagé ne ko yow rek iyyaka na'budu wa iyyaka na waroo too xalaat lu dul yàlla leneen loo xalaat lu dul yàlla yàlla bàyyi la fa yalla du jël morom loola tax mu ne fu woy musa an salatim sa lu sinam yara ona wayam no ona ma ona isma mu ne fal ah, mu ne ah, doom am seigne bamba gën loolu ngeen def ah, ku lak ngeerum seigne touba lak ngeerumul yalla ku lak sama ngeerum lak nga ngeerumul yalla ndax seigne touba ma gërem te yalla gërem nako te rasulay gërem nako ngeerum ko ñu nak du jëriñ dara dal ni ku ñu nak ku mu am nga ndax jërëjëf bu doon tax a jëriñu madame bi jëriñ ci jëkkëram ndax bés bu ne mu ne ko merci waaye yàlla du ko gërëmut moo tax jëriñu ko dara na ngeen gëm sëñ tubaa na ngeen wóolu sëñ tubaa na ngeen doyloo sëñ tubaa na ngeen wëkkilu ci sëñ tubaa na ngeen tàmbalee ci moom yem ci moom ku moom amoo njëriñ si arafaara loolu bàyyi suma joxaane dé dé nga wax bi léegi la ko gars yi jàll nag tàmbalee ci sëñ tubaa yem ci sëñ tubaa ñu jàll ca ginnaaw digwa te sëñ tubaa loolu la def làkk Touba. Cheikh Fall la ko jàng ba yeggal ne ko làkk nga ko tata nga ko kenn di dugg ci biir ruur ko daane ku dugg ci biir làkk bi kuy wax ci biti baleñ ko saytaane la ku dugg ci làkk bi lu mu wax yéen def leen ko waaye kii làkk bi ci biir làkk lay juddoo dégg wax bi moo tax ŋaat bi woo ci dugg dégg ci yoonu Bàmba ji ku suñ tuwaa gërëm bàyyam bokk ci def waxu ko am déggu leen ma dégg waa dama leen ay woo dégg ñu wax ko ci yoonu murit mbaa wax ko feneen ba kenn di kaas ku suñ tuwaa gërëm bàyyam waxu ko ku sëñ Tuubaa gërëm baayam day yem ci sëñ Tuubaa tàmbalee ci moom ni tugg tey togglu ni tekk te lépp di dox salaamaaleykum wa rahmatullah la ilaha la ilaha illallah ndulo jaame joxaane moom ndulo